melokaanu murit bu dëggal sëriñ ba wax na ni bépp murit bu aju ci moom mucc na murit nag mooy jullit bu nama àgg ca yàlla daldi jaayante ak sëriñ bi di jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem te loolu mooy di jaamu yàlla te doo ko bokkaale topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa waxi sëriñ tuuba bari na ñu koy ndamoo ndax li nu bokk ci yoonu murit waaye sëriñ Lamin Jóob Dagana radiyallahu anhu daana wax ni bala nga ndamu ci waxi sëriñ na la wóor nangul nala la sa taalibe yàlla nanu yàlla nangul sunu jullit sunu jaayante ak sunu taalibe amiin